jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen ngi ñu topp ci seen rubrique Touba ma yónni mbokk yi tey Touba yónni waat na ma ci ban foneen fu gën a garaaw tey jii la àjjuma mbokk yi xool leen fi ma nekk mi ngi jógee Daaru Xudóos station Daaru Xudóos dëgmal fan route de Belel bi ci laa taxaw sama caméraman mi ngi taxaw net ci fi nga xam ne moo di duudaan bi mbokk yi fii ma nekk yàqu-yàqu yu fi ne bu leen ko ji ndoxum taw bi de déedéet fii am na kanaal xam ngeen ne Touba ci kanam jaaroon na fe akub kanaal bu rëy waaye fii ma nekk tiwo bi moo fi bënd tiwo bi ndox mi sotti ko subaa ngoon bën bën bi nag ñi ma fi fekk nee nañ ma du tey du demb du bërki demb ab toj toj rek ko yàq damay ànd ak mbokk yi dem taatan ñi nga xam ne ñoo fi nekk di ko dund ñu wax ñu ndox mi lan moo ko fi bàyyi ak kañ la fi nekkoon yaakaar naa ne loolu mbokk yi liggéey la bu rëy boo xam ne diggante bi nag matul 50 sëñ Bas maa ngi lay nuyu. sëñ maa ngi lay ziare ba. sëñ Bas bëggoon nañoo xam ndox mi lan la. lii daal tuyau bu toj la woon xam naa ne bi mu tojee léegi avant màggal bi màggal gi desee ñetti fan la toj mu doonoon tuyau bu ndaw di stock tuuti waaye depuis boobaag léegi ku xam rek woo nañ la woo nañ Maawu Rahmati woo nañ euh, Touba ci kanam woo nañ waa mairie bi boobaag léegi mënuñoo fexe ba bis bu set nag nit ñi daanu fi bi bu set am ñoo xam ne ni seen yére noonu lañ koy jëlaate euh, wàññi ko waat dem seen yoon ñi nga xam ne ñoo yoru am ñu ngi fi tuur nañ ñu ci dimbali ngir yàlla jëm jërëjëf mbokk yi ñoo ko jot a déggandoo yàqu-yàqu bi ci tëli bi ak waaye ndox mi ci taa bi moom tiwo bu bënn la du ma jóg ci di ko wax nag ñen ñoo yor entretien tiwo yi waxoon naa leen ne ndox mu naqari mi moo manqué de waaye bokk na ci li ko manqué mooy tiwo yu toj te ngeen du ko saafara ab dëkk nag kuñ fa dénk lépp loo xam ne moo jëm ci wàllu ndox ma entretien ba yow la war mbokk yi dee leen góorgóorlu di defar toj toji tiwo yi balaa gën a yàq tëli bi fii nag Touba ma fi yónni woon rek mu ñëw fi gis lu yàqu rek ma di ko wanaat bokki jullit yi ak bokki taalibe yi seen bokki taalibe la Fallou Galass si la woon fii ci route de Belel station Daaru Xudos bi Touba yónni woon ko ci ay toj-toj yu ànd ak tiwo bu bënn may laaj nag ñoo ko war a defar